waaw mbokk sénégalais yi dëkk fii ci Italie yéen déglukat yi yokku rajo tey nag dañoo dikkoon euh, ndaxte dafa am xew-xew bu mag boo xam ne suñu mbokk sénégalais bi ñuy wax faamara Sow moom moo jël idée boobu pour créer benn événement wax dëgg yàlla bu mag di leen fàttali nii rek faamara Sow Euh, ci ñi njëkk immigré fii ci mi jóge Sénégal ci la bokk moom ak beneen xaritam bu ñuy wax Pape te ñëpp xam leen fii ci Italie ñoom ñaar ñëpp di jaaree ci yokk rajo ci suñu waxtaan euh, ñuy netti histoire yi sénégalais fii ci Italie fàttaliku nañ suñuy maam yi nga xam ne su ma yeboo ne ñoom ñu ko tuddee les premiers moodu mooy ñi nga xam ne ñoo ñëwoon ci guerre bi ñaari guerre mondiale yi muy 1998 ak 39 45 waxtaan jooju wax dëgg yàlla nekkoon fàttaliku boobu nekkoon wax ju rafet ak ju daw yaram ci noonu lañ demee ba nga xam ne Famara moom ak Pape ci mbootaay bi nga xam ne Famara moo ko jiite tuddee ko Union des Sénégalais de l'extérieur ñu am xalaat yi jël ab brèche jargal jar jar jagalee ko su maam yooyu nga xam ne ñoom lañ rekk fii ci Europe ci Italie ak ci Europe loolu moo tax tey Famara am projet boobu xelaat boobu ñu invité ko donc pour waxtaante ak moom Famara ñu ngi lay nuyu. Euh, asalaamaaleykum euh, bàyyi ñu ngi lay fay. waaw léegi donc Famara nga ne donc xew-xew boobu euh, pour dem sargal suñu maam yi nga xam ne ñoom lañ denc fii ci Italie. Mm-hmm. moom nga fas yéene yow ak ñi nga àndal. Euh, bañuy ñuy dugg ci programme bi Famara dama bëggoon rek nga wax ñu lu tax nga am xalaat boobu pour dem sargal su maam yooyu lan moo tax waaw léegi xam nga lu ñuy yëg ci euh, bis bi mooy lu daw yaram la aussi parce que comme ñun dañu doon def ay recherche ba xamante ne bon vraiment euh, France dafa allié woon ak Sénégal ndekete bon ñu ñëwoon nañ fii Italie ba suñu maam yu bëri des fi moo te suñu autorités yi defe naa ne suñ ko xamee tamit aussi vraiment amul lu ci fàttaliku comme ñun fii la ñuy vivre Italie bon dañu bëgg a euh, wane ne tamit aussi fii ñu nekkal ñun ay nitu jàmm lañ. loolu moo waral caravane bi. Mm-hmm. waaw donc Famara xam xam nañ ne effectivement loolu ñi jàng histoire ak euh, ñi am ay doon waxtaan ak seeni maam gis nañ ne euh, am na maam yi denc. ñu gaañu ci guerre deuxième guerre mondiale bi mhm. ak ci première guerre mondiale mhm. fi ñu dëkk ci Italie femme la am na euh, am na fu ñu leen denc waaw am na fi ay cimetière mhm. yu bëri yoo xamante ne typiquement boo demee di nga fa gis ay turu sénégalais am na ci toskaana bi am na ci Emilia Romagna bi am na ci Lazio bi quoi bon bi nga xamante ne fi la ñu bëgg def ci caravane bi fi la bëgg a dem ah, ma dagg la sax ndax am na ca France man mii yu bëri bëri am na dëkk dëkk bu déggee Lyon mhm. ñu koy wax Chasselet mhm. man mii demoon naa ba wax dëgg yàlla gis ko si mhm. cimetière ba soo ci gisee ay fay ak juuf si soxoog rek nga gis donc mu mel ni Italie tamit loolu am fi waaw donc euh, mais mën nga ñu wax Famara suñu maam yi ñu denc ci Europe ñaata ci xayma bi ci ñaata lañu ñu war a toll bon xayma bi exactement ñu ngi ciy gëstu mais tu sais y a soixante mille la waxagum te mën na am sax ëpp na ko parce que am na ku ma doon nettali ne am na ci ñoo xam ne sax denc bi ñu leen denc. Mhm. boo doon ñu leen wan ñu quoi. Mhm. parce que boo xoolee ci isolé Delbé bii ñu jëm nii. Mhm. bon fosse commune la. waaye fosse commune la xam nga bi nekk France da ngay gis ay tur. ñu naan la diw diw diw diw. bon am na ci ay benn benn boo demee ci Émilie Romagne bi fi ñu denc. bon alliés yi da ngay gis ñuy ay benn benn mais bi nekk isolé Delbé mooy bi ci gënoon a tànk. mais boo bu fosse commune la. waaw dafa mel ni ci affaire Isola Delbo boobu am na benn journaliste italien. bu mhm. ci bind ba wax ñu ci mu nga fàttali suñu mbokk rek. moom mi nga xam ne moom taseeg ñi nga xam ne ñoo muccoon ci guerre boobu ci suñu maam yi. Mhm. moom dafa mel ni dem na ba seeti leen ca Sénégal waxtaan ak ñoom mën nga ñu nettali histoire bi. waaw ndaw si après moom léegi la ñu mettre en contact ak moom. Mhm. mais bi ñuy yëg lii suñu yaram. ak di organiser wu xamuñu woon ne sax am na ko ci bind. Mhm. ndekete ndaw soosu bind na benn livre. tudd ko la guerre di Boubacar. waaw mu tudd Francesca Caminoli. waaw Francesca Caminoli boobu moom ndekete bind na ci. après bi ñu defee ñun bu ñu defee suñuy réunion ba waxtaan ci suñu union des Sénégalais de le extérieur bi suñu association boobu ci lañ amee contact ak ndaw si ndekete moom bind na ci. Mhm. Hmm. waaw mais lan la nettali ak Mébét moom mii nga xam ne moo rencontré Boubacar boobu lan la ci nettali moom. moom mi nga xamante ne mooy Francesco boobu bind livre bi. actuellement ni elle la surpris. Hmm. parce que dafa ne dëgg-dëgg moom moo mujj gis ki nga xamante ne. moo fekk woon jour bi ñuy bombardé isolé bi mu rëcc ca. Hmm. muy maam Boubacar moomu. nee lii ñu mébét nii nee na maam Boubacar da ko doon ñaan. di wax suñu sët ak suñu doom yi nekk Italie. na ñu amu xalaatu. dem ca jàmbaar yooyu nga xamante ne dañu demoon jàppale Italie tëdd foofu ñu dem di leen ñaanal bon ma wax la ci benn secret tamit am na suma benn xarit boo xamante ne mhm. mu ngi dëkk Sardinia ñu koy wax euh, Modou Moustapha Niang moom foofu la été ren mais chaque àllarba dana dem ba suñu maam yi foofu ñu tëdd mu ñaanal leen fa mhm. mu may wax barki démb sax am na ci turu yoo xam ne ci alxuraan lañ ko bind te boobu ñu xamagul ne ñu fi un nouveau réminas suñu association union des sénégalais de l'extérieur bi ñu ngi réunion ak di xol ay pexe yu ñu déparé fi Mina dem fofu dem siyaare ji ko quoi. Hmm. waaw Famara donc euh, xana euh, ñu dugg légui ci programme bi yeen yi nga xamné yeen yéen euh, sa mouvement bi nga jiite union des sénégalais de l'extérieur. ah nga présenté ñu rek. Hmm. sargal bobu nan ngeen ko bëgg def ak programme bi le 2 novembre il me semble moom ngeen japp waaw le premier incha allah la ñuy déparé Milan. programme bi kat dañ la bëgg a xamal ne ci dañuy jaar Firenze. ndax yaa ngi fàttaliku ñaari sénégalais yooyu ñu fi fas fasciste boobu boomoon. léegi danañ koy yëgal autorité yi nga xam te ñoo nekk Firenze ak association yi nga xam te ñoo nekk Firenze. parce que fa la ñuy jaar. de dernière génération bi nga xam te ne moom lañ fa jotoon ñaar ñooñu ñu fa jotoon a faat dañuy jaar foofu ñaanal leen ci la ñuy doon continuer ci isola ba. ñu demee ci isola ba nga ngeen. lan ngeen fas yéene defal comme programme. bon programme bi mooy dañuy ñaan. Mm-hmm. ci diine yëpp. Mm-hmm. parce que comme ni la waxee ne caravane bi dafa invité ñëpp. Mm-hmm. muy musulman muy chrétien muy animiste parce que te jamono yooyu. boobu ci jamonoy ceddo yi la. kon mënuñu limité. ne kii la ñuy invité wala du ñu invité kii. comme force commune la aussi. ñëpp ko bokk ñëpp la ñu invité quoi. waa Famara euh, xanaa nga wax ñu rek euh, xew-xew boobu ngeen di def ak yenn association sénégalaise yi ngeen ci àndal. waaw ndax am na yeneen association yu fi mel ni waa Firenze yi. waaw mhm. bon Serigne Mbaye Diop aussi. waaw defe naa ñëpp xam nañ ko aussi. bu dëkk la war na. waaw moo jiite coordination association sénégalaise bu Toscana. waaw waaw moom mu ngi liggéey ak ñu. Mhm. parce que dañ ne aussi comme ci Milan la ñuy départ jëm ci Toscana bi. Mhm. luñ ci mën a def tamit aussi. dañuy déggante ak waa Toscana. lu ci mel ni waa Livorno. lu ci mel ni waa Pisa ñu ci mel ni Plombino ñu ci Firenze ñooñu luñ aussi parce que jour bi jour, ñaan la. jour bi jour nous la kon ñëpp lañ koy yëgal. kuy africain waxuma la sénégalais sax mais muy malien bi ivoirien bi guinéen bi Niger Burkina Faso bi ñi nga xam dañu allié France ànd Sénégal nous intervention def intervention boobu pour ñëpp suñu euh, est-ce que am ngeen ci ay mbootaay Italie comme Italie lañ nekk. Mhm. yoo xam ne euh, bokk nañ ci xew-xew bi. waaw parce que ku mel ne fondation Prodi. Mhm. fondation ne roman de Prodi boobu dafa bokk day bokk ci invité yi. fondation day populi day populi mhm. bon mu ngi mel ni tamit aussi waa COSVOC. defe naa ne ONG la bu ñëpp xam ci Milan. day ànd ak ñun. bon ak képp ak commune de Milan. ak consulat bu France. bu Milan ak l'ambassade de France à Rome ak l'amba non l'ambassade du Sénégal à Rome hmm. ak consulat général de Sénégal en Mina ñëpp dañ leen di boole ci programme bi. d'accord xanaa femme rek ñu fàttali suñu mbokku Sénégal yi. Hmm. ndax seen euh, euh, euh, initiative bu rafet boobu. Hmm. ñàkkul ay suñu mbokku Sénégal yi ñoo xam ne. bëgg nañ ñu bokk ci programme bi pour wax ko bokk ci programme bi nan la ñuy def. waaw maanaam léegi ñëpp ñu ngi wax ne dañu bëgg bokk motax ñu bëgg a joxe ay téléphone yo xamantene ku ci bëgg renseignement fan la kaar di déparé ak programme bi boo wootee ku mel ni Baye Diouf moom dana la expliquer bon incha allah le premier ñu fiy déparé parce que le premier la ñuy la ñu fiy déparé ñu demee dañuy fanaan bësër rek bu ñu demee danañ fa def ay discours danañ fa ñaan danañ saafonteeg waa commune ba danañ saafonteeg waa région ba. waaw ñu fàttali suñu mbokk yi ne comme ni ko Famara waxee képp koo xam ne dina bokk ci euh, euh, xew-xew bi nga xam ne euh, mbootaay bi. افریقی چی دیگه سنگالی دل اکستریر برساده سومالی nga xam ne ñoo daanu fii eh, ci guerre mondiale yi di leen wax ne numéro yi bu faara ma jox leen ko mooy 329 18 38 289 ma bankruwaat ko 329 18 38 289 di leen fàttali ne aussi euh, su leen neexee mën ngeen woote ci siège yokku rajo ma jox leen numéro téléphone bu yokku rajo mu nekk 02 43 12 47 11 ma répété waat ko 02 43 12 47 11 kon nag mbokk yi ñu ngi leen di joxaat rendez-vous ci prochaine émission bu yokku rajo jërëjëf.